ñii nga xam ne ni ñoo fare ci société civile ñeneen bootu ci ay parti politique ak i association ñoom ak ña nga xam ne ni ñoo ne ci bopp réew mi ñoo bokkoon ci bile plateforme mu di ab plateforme bi nga xam ne ni jotoon na sax xaatim ab pacte de bonne gouvernance bi nga xam ne ni tey bëgg nañ ñu jëfee ko. ba ñuy waxtaan ci suñu biir dañu yàgg a wax ne euh, dafa am loo xam jóge ci réew mi maanaam mu am koo xam ne dafay nekk di buur di buumi lu ko neex mu def ko neex mu tëj. bu ko neexee mu sant nit ñi ñu rey ay nit te dara du ci xew. ñuy woo njiit yu bees yi ngir ñu amal ay coppite yu rëy ci nu yoon di doxee ci miim réew. par exemple député yu neen di fale réforme yooyu war na nag nekk fu ne ci suuf si war na nekk également ci code pénal bi parce que mënuñu toog ci mim réew ab procureur toog fa mu toog jël diw tëj leen ko kenn du ko jugé ah ba pare ñu bàyyi ko mu dem yoonam ci dara loolu il faut mu jeex fi. donc réforme yooyu dafa baax ci réew mi muy réforme code électoral muy réforme code de des marchés. waaye ngir bëgg-bëgg googee mën a antu ñi fore ci bile plateforme bëgg ñu xoolaat suñu dëkkin ak na nga xam ne ni moom la ñuy doxalee. soppeeku dafa war am gouvernement yi dañu war a soppi ñoom ñooy war a jiitu parce que ñoom ñoo war a jub jubal bu ñu jubee jubal bu boobaa nañ mën a xëcc ñi ci kanam ñoom ñooy wone modèle. bu fekkee war nañ model bu baax ñëpp topp seen kaw waaye bu bu ñu jiitoo te nit ñi toppuñ si aussi du dox donc pour ñi ni topp ci nag il faut que ci seen ni ñuy xalaatee ak ni ñuy doxalee seen comportement ak seen mentalité ñu changé ko bu baax a baax. gannaaw bi nga xam ne ni ñoo ngi waajal aw lël ngir waxtaane ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la yoon di jànkonteel ci mim réew ñoom ñi lee bëgguñu amal ay coppite yi tax ba suñuy institution gën a dëgër dooleel ak ak yelleefu nit yi yeewoo ci biir réew mi ba ñëpp mën a gis seen bopp ci ni yoon di doxee.